yàlla daal leen cay xettali moom yàlla li ko nii de la leen yàlla di leeralee laayaan yi ngir ngeen mën a jub mu teg ca ni na ngeen doon xeet wala na am ci yenn xeet wala kuréel woo xam ni dañuy woote jëm ci yiw di digle lu baax di tere lu bon te ñooñu rek ñooy ñuy texe bu leen mel ni ña nga xam ni dañoo xàjjale koo woon tàqale koo te wute gannaaw ba nga xam ni lay yu leer ya dikkal na leen ah ñooñu de ñeel na leen am mag kon loolu fàttali bu mag koo xam ni borom bi subhanahu wa taala koy fàttali jullit ñi sallallahu alayhi wa waxam nañ ci xarit boo xam ni an-Nu'man ibn Bashir moo ko solo radiyallahu anhuma mu nu yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na mathalul muminina fi tawaafihim wa taraqimihim wa taatufihim mathalul jasad ida shtaka minhu udwun tadaa lahu saairu jasadi bisahri walxumma muttafaqun alayh nit ju yi mel ca seen co soppante ak yërëmante cofeel ak seen cofeel dañuy weccante na mu mel wala na mu war a mel mooy nit jenn yaram nit jenn jëmm jamono joo xam ni am na jenn cër du tey tawat mboolem cër ya ànd ak moom bokk moom foog ñàkk nelaw ga ak tàngoor tàngoor yaram euh, bokk jullit yi ñun ñëpp gis nañu ni tey euh, dëkk lislaam yi ñu ngi dund ak xàjjal ko bu tarata ak wute gu mag ci cosaan yi ak yi ak ci jubluwaay ba loolu yóbbeen xeet yi ñu tàqale ko ci ay kuréel yoo xam ni ñu ngi ngiiroo ñu ngi xeex guddi bëccëg loolu yóbbu na xeet bi ci boppam ci nasax ak néeg kàttan ak néeg doole euh, noonu tamit loolu yóbbu na ci xeet yóbbu na xeet yi ci dellu ginnaaw ci domaine yu bari ci wàllu àdduna loolu tamit yóbbe mu doy li ci kanamu ay noonam bal la ko yàlla séddoon ci ay jariñ dem na sax ba noon yi ci seen loxo di ko jariñoo dem na ba effort yi nga xam ne ñooy jéem a baaxal yiw nañ effort yu bari ci ñooñu ndax ndax ñàkk bennoo xeet wi ak ñàkk tamit dëppoo ci wàllu kàddu ak ci wàllu sàppe euh, Sénégal tamit moom rëccul ci loolu dal alam islam wante xaala bi ñu dund nga xam ni moom la al alam islam yi dund boobu feebar la boo xam ne dafa gaar yaramu xeet feebar boobu comme ni ko xamee manifesté wu na feeñ na ci ay euh, jeexit am ay sabab yu ko waral am tamit yu mu jur yoo xam ni indil na loraange bu mag a mag xeet yi te xëy na waxtaan yi jiitu euh, gis ngeen ci dégg ngeen ci euh, lu aju ci loolu feebar boobu nag nga xam ni dafa gaar xeet bi ndax tàmbalewul ci xeet bi njëlbeenu xeet bi feebar boobu dabu ko woon nekk woon ci moom ginnaaw te du ko dab kon loolu li mu ñuy may ak li mu ñuy jox mooy lu ñu mën a faj la lu ñu mën a génne xeet bi la noonu tamit xeet bi bu mën a wér la ci jàngoro bu mag boobee nga xam ni dal na ko nag ngir mu am muy faj googu ak wér googu euh, dafay laaj taxawaay bu am solo bu màgg bu rëy bu gaaw tamit ci mboolem couche société bi muy société sénégalaise euh, jël sabab yi nga xam ni di wér la yoo xam ne mooy mun a tax ba benn boobu mun a am diggante julli ni wala kàddu julli ni ak seen sabo mun a nekk benn ñooñu nag ñi ci gën a yeñ ci taxaw ci ngir indi ay saafara indi tamit ay euh, solution noonu tamit wane ay yoon yoo xam ne buñ ci jaaree xaj na ñu yegg ci saafara feebar woowee ñi ci gën a yey mu gën leen a waar mooy ñu jiite nit ñi ci wàllu xam-xam muy borom borom xam-xam yi ak ñi nga xam ne ñoo jiite nit ñi ci wàllu yeete ak jubbanti leen ak orienté leen muy wootekat yi ak itamit yi nga xam ni ñoom ñooy yi nga xam ni ñoom ñoo ngir saafara boobu ñu am na ko te muy association yi ak tamit mbootaayu islam yi loolu tax incha allahu ci jotaay bi danañu fexe Euh, gaaral ci lu gën a lu mu gën a gaawee lenn ci effort yi nga xam ni euh, moom la euh, ñi nga xam ni ñooy wootekat yi ak boroom xam-xam yi ak lenn ci association islamique yi taxawal ci wàll woowee ngir benn le sàppe jullit yi ngir tamit faj feebar woowee tomb bi Euh, dañ ko séddale woon ci ñetti wàll wàll bu njëkk bi mooy dawrul ulamaa yi wa duaati wal muassasaati wal hayaati al fi taxqiq al waxda kooku mooy bu njëkk bi maanaam rôle borom xam-xam yi ak wootekat yi ak association islam yi ci jéem a amal benn noor jullit ñi ak seenu gàtt ñaareelu wàll bi mooy al juhudul mabdulatu min al masharixi wa duaati fi taxqiqi waxdati saf kooku moo doon ñaareelu onsul bi mooy ñaareel wàll bi mu ñaareel élément bi mooy effort yi nga xam ni euh, jot nañ ko amal ci ñi ko amal di magu daawa ak borom xam-xam yi di mag ci wàllu ci xam-xam te euh, ñoo ko amal ngir jéem a bennale sàppa jullit yi ak tamit seenu taal euh, ñetteelu wàll wi mooy asaalibu taxqiq yi wahdati saf maanaam méthode wala bu la neexee ay yoon yoo xam ni euh, buñ ci dana ñu mën a amal benn jullit kon tomb bi Euh, bu mag bi muy mooy thème bi ci ñetti wàll yooyu lañ ko séddale woon xam ni bu ne am na li euh, ñu prévoir ngir ñu jël wàll bu nekk wante yàlla natt ñu danañ jéem a euh, jaar jaar yu gaaw ci ñaari wàll yu mujj mooy deuxième élément bi al unsur thani mooy al mashayikh wa duaati li taxqiq al waxda waxdatu saf boobu danañ jéem a jaar ñetteel bi tamit danañ jéem a jaar mooy asali li taxqiq waxdatu saf bu njëkk bi nag kooku moom lañ leen cërale comme ay borom xam-xam bi teew ay duaati bi teew talabatul ilm bi teew bu ko defee ñu cëral leen ko incha allah ci di sàkku ci kenn ku nekk mu jéem a xalaat fii ak ñi ci yegg trois points yoo xam ni gis na ni dawra la xam ni borom xam-xam yi ak duaat yi ak mu asar islam yi mën nañ koo taxawee ci mën a amal euh, euh, waxdatu saf kon euh, ñu ngi koy sàkku ci mbokk yi ñu tàmbale ko léegi xalaat yi bind ko bu ko danañ fexe jaar ci kenn ku ne ci ñi fi nekk indi ñetti xalaatam yi nga xam ni mun na participer ci euh, benn sàpp jullit ñi te mu war a jógee ci borom xam-xam yi ak wootekat yi ak association islam kon bu ñëwee ci euh, tomb bu jëkk bi mooy al al thani nga xam ni ñun mooy ci ñun al unsur al awal Euh, muy aljuhud almabdula min almashaaqi wa duaati fi taxqiqi waxdati saf muy effort yi nga xam ni moom la euh, sëriñ si nga xam ni ñooy magu daawa euh, di magu mag ci xam-xam effort def ci benn la sàkku julli wala amal benn leen ci bennoo ci sàpp julli ñi ak seenu gàtt loolu am na ci mbir yu bari ñu ci mën a wax wante ñun danañ ci euh, tënk ay tomb rek incha allah yeneen yi xaj na ci contribution yi mbokk yi danañ ko indi bi ci jëkk nga xam ni gis nañ ni ñi yi nga xam ne ñooy machaayir yi ak doaat yi def nañ ko ci réew yi ngir jéem a amal bennoo sàpp jullit ñi ak seenu kàddu mooy woote jëmee ci alquran ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam teg ko ci naka mag ñu baax ñu déggee woon muy saxaaba yi taabiin yi ak taabii taabii yi ak jéem a tamit delloowaat nit ñi ci yaar yooyu muy alquran ak sunna ci jamono yi loolu euh, luñ fàng la boo xoolee xot xutba minbar yi boo xoolee leçon yi am moo xam ci jàkk yi wala ci kër yi wala ci yeneen bërëb boo xoolee tamit conférence yi moo xam conférence privée yi wala publique yi boo xoolee table ronde yi ak tamit boo xoolee séminaire yi yi am congrès yi Euh, yi nga xam ni dana am ni borom xam-xam yi taxawee ko moo xam tamit yi nga xam ni dañ koy jaarale ci média yi muy émission yi jaarale ci média yi ak ci moo xam ci rajo yi wala ci télé yi ak léeg-léeg sax ba ci yenn article yi ñuy bind ci yenn journaux yi ak participation bu mag bi ñuy def ci yenn euh, waxtaan yoo xam ne dañ koy jaarale ci site internet yi ak réseaux sociaux yi loolu yëpp euh, borom xam-xam yi ci Sénégal rawatina ñi nga xam ni ñu ngi ci alquran sunna ci na xam na xam ni noonu noonu la ko mag njëkk yëpp jëkke woon loolu euh, xam nañ seen tànk tóore euh, noonu tamit def nañ ci waaru mag ba nga xam ni loolu am na ay mbir yu mag yu mu jur ci saaxa bi nga xam ni ñu ngi ciy teg suñu bët mun cee teg suñu loxo bokk na ci yu mu jur mooy tënku ci sunna gën naa fës ci réew ak askanoo ci sunna ci mboolem couche société bi nga xam ni loolu lu tumranke la war ci Sénégal loolu gis nañu ñu ngi commencé feeñ ba nekk phénomène doole boo dem danga fa fekk koo xam ne mu ngay jéem a góorgóorlu ci sunna beneen bi aussi mooy am ñu bari ci société bi ñoo xam ni dañuy adopté manhaj salaf maanaam yoon mag ñu njëkk ci wàllu pas-pas ak ci wàllu jaamu yàlla ci wàllu jubbu ba ci wàllu daawa eh, ñu ciy jéem a tënk loolu tamit jur na ko maanaam woote bu borom xam-xam yi taxaw di ko woote ci lislaam bi afraad ak sunna teg ko ci ne xam ni noonu ko mag ñi dégg woon jur na lu mel noonu sunna ak manhaj bi manhaj salaf mooy yoon yépp yoon bi xam ni moo mën a benn rek sàpp jullit ñi jullit ñi mënuñoo bennoo ci wenn euh, ron sa benn ron euh, drapeau bu dul drapeau boobu loolu loolu rek la leen bokk na ci yu mu jur tamit mooy jur na xam-xam gën a dekkiwaat nit ñi gën a yittewoo gën a yittewoo xam-xam gën a yittewoo di jëlee xam-xam ci suuf si cosaan yi nga xam ni moom la l'islam reconnaître ndax bu njëkk Euh, li nga xam ni euh, ñoo tasaare réer wala ay bidaa xaj na ñu ngi leen sukkandiku ci ay waxi ay nit wante ñu demee ba nga xam ni débat yi ci télé ak rajo yi euh, ak tamit conférence yi bari nit ñi di ci borom xam-xam ko la ko lay loolu dem na ba obligé yu bari ci ñoom léegi ñu ngi dem di delluwaat ci cosaanu euh, xam-xamu lislaam di jëlee seeni tegtal ci alquran ak xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nañ koy tegtaloo xaj na euh, mu bañ a doon wér wante loolu participé na ci dekk la xam-xam ci Sénégal bokk na tamit ci li jur mooy gën a tënku ci sharia noonu tamit euh, gën a am comportement bu dëppoog l'islam loolu feeñ ci góor ñi feeñ tamit ci jigéen ñi ci seen tolin ak seen comportement ba loolu ñu koy gis mi ngi law dëkk bi loolu woote ni cosaan la muy woote ci alquran ak sunna ci na ko mag loolu moo ko jur euh, na ci li tamit mooy dekkil na sunna euh, ci am yu yaatu fexe na tamit rey bidaa yu bari noonu tamit xam nit ñi bidaa yu bari mooy turoo nit ñi yu bari yoo xam ni kenn sañu woon tudd bidaa yooyu kenn sañu woon tudd ni bidaa la léegi ñu koy def sax dem nañu bari gëm ni bidaa la wante ña ngi teg ak leneen ni wante même dee bidaa bidaa bu naan la kon loolu euh, taaw boobu indi na euh, participation boobu loolu bokk na ci mu jub bokk na ci ay njariñam mooy li dëppale sàpp yi am na bidaa moom day tàqale sàpp am na lu mu juraat na euh, jàngkat yi ba jural tamit peuple bi ñu ci bari ñu gën a joxaat texte sharia yi kër gu màgg laa ci seen xol nga xam ni euh, gis nañ ni référence bi gën a mag mooy yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa ñu bari ci société loolu ci boppam dekkalaat na euh, gëdd goo nga xam ni moom la texte yi amoon nga xam ni li li mu am mooy wax nit ñi ñoo ëppoon doole ci xolu nit ñi waxi yàlla waxi yonent bi sallallahu alayhi ñu bari ci nit ñi euh, siècle bi maanaam bokk na ci li mu jur mooy xadis yu bari yi nga xam yu wér woon wala xadis yu sos la tàmbale di ko seggi léegi seggi mu commencé am ci wàllu xadis xam ne bu njëkk loolu kenn di ko xalaat wala di ko wax sax ni lii xadis bi xadis wala xadis bi dañ ko soppal bi sallallahu alayhi wa loolu mi ngi commencé di dekki te mi ngi commencé di fës woote jëme ci alquran la sunna ci nag ba mag ñu déggee bokk moo jur loolu yëpp euh, bokk na tamit li mu jur mooy gën a euh, attaché jullit bi ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak waxu mag yu baax yi rawatina yu bari ci jeunes yi jur na tamit yar boo xam ne yar nañ ko ñu bari ci jeunes yi rawatina ci éveil islamique bi am muy saxwa bi jur nañu yar rawatina association yi ak yenn ak borom xam-xam yi yan jeunes yu bari ci digg doomu gi nga xam ni moom la sharia jàngale ak équilibre bi nga xam ni moom la sharia jàngale bokk na ci li mu jur tamit mooy jëlawaat na jàkka ay rôlam yu bari yoo xam ni rocc woon nañ ko ci moom ak tamit rôlam yu bari yoo xam ne rayoon nañ ko léegi rôle yooyu ñu commencé jékkiwaat noonu tamit responsabilité imam bi nga xam ne dañ ko yabale woon ci allahu akbar asalaamaaleykum tàmbale na ni ñu bari bi gis ni ndekete responsabilité imam yemul ci allahu akbar asalaamaaleykum kon jàkk yaa commencé dekkiwaat jàkk yu bari kon loolu li ko indi mooy woote gi gi nga xam ne moo leen woote jëme ci alquran ak sunna yonente bi sallallahu mooy li nga xam ni mag jugul yi nga xam ne mag ñi def nañ ko ak doxaat yi borom xam-xam yi ci mën a bëgg ak benn la sax jullit ñi mooy woote jëme ci kàddu tawxiid bi nga xam ni moo mën a benn la kàddu jullit ñi ak seen sax ndax foofu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam tàmbale ak yi gannaaw bu leen fekkee ñu nekk ay kuréel yu wute yu yoo xam ni ci ngaayoo ak xeex ak xuloo liñ dëkkoon fekk seen xol ye féewaloo waate yàlla tàppe seen xol ya ci ngëni la te loolu mooy islaam muy tawxid bi nga xam ni moom la yàlla joxoon yonent bi sallallahu tàmbale woon foofu yi saxaaba yi tàmbale woon foofu loolu moom indi bennoo muy am bi nga xam ni euh, amoon na ci jullit njëkk ñëw loolu tamit Euh, da ngay gis ci loo xam ne ñëpp teg nañu seen bët nit ñu bari ñoo xam ni ñu ngi nekkoon ci ay intimaat yu bari laata tawxiid di leer seen bopp mais bi li tawxiid xasee leer seen bopp yu bari dañ ko dañ cee mujj faxasu euh, bàyyi ko considération yu bari ñu mujj ko bàyyi bàyyi ko ñëw daal Euh, di amal ay déclaration yoo xam ne dañ koy bokk wala ay xutba yoo xam ne dañ koy bennale ci yenn événement yu mag yi nga xam ni euh, ak xew-xew yu mag yi nga xam ni dafay laal muqaddasat islamiyya wala muy euh, yëngal yenn yi nga xam ni sawaabit mujtama Sénégal yi te yooyu mën nañ ci tudd yu bari yoo xam ni am na ci domaine boobu par exemple lu mel ni ci caricature yi amoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam association yu bari ak borom xam-xam yu bari jéem nañ te daje euh, boo def ci ay déclaration noonu tamit film bi nga xam ni moo doon ñaaw jéem a tuuma ñaaw dem yonent bi alayhi bi amee loolu tamit am na ay réaction yoo xam ni yu julli wala borom xam-xam yi ak wootekat yi daje daje def ko euh, noonu tamit bi ñu essayé wala rumeur essai yi euh, de pénaliser mbirum góor jigéen bi mu commencé mu siwee tamit ci réew mi borom xam-xam yu bari boole ñu def defandoo ay xutba yoo xam dañ ko bokk ak tamit ay euh, taxawaay yu noonu ba ci li ci mujj mooy ngóor soosu ñuy wax sant rek euh, bi mu tàmbali di tudd ay ak feeñal ak tasaare lenn ci ay réer ak yenn ci ay ilxaada loolu tamit jur na ay daje yoo xam ni borom xam-xam yi daje nañu ko ak wootekat yi benn la seen kàddu ci côté boobee ak seeni déclaration loolu nag li muy jur mooy day gën a tax euh, sàpp yi gën a benn benn ndax li ko waral mooy day gën a benn la jubluwaay yi euh, gën a benn la tamit euh, gis-gis yi dañ ciy woo pour mu indi expérience am ak indi xam-xamam jokk kuréel bi nga xam ne dafay yëngu ci lislaam euh, loolu ci boppam wàllu tabaarul fédéral la boo xam ni mi ngi am ci diggante macha te loolu dafay dugg ci wàllu taawun ci wàllu daaw euh, noonu tamit am na ay coordination yoo xam ne am na ci ay effort yi dañuy def ci wàllu ci wàllu daaw yoo xam ne dafay jëm ci wàllu yaatal Euh, ci wàllu daaw euh, yooyu mën nañ cee joxe misaal masalan kii nii daje gi nga xam ni ñi jiite kuréelu islam yi ak ñi nga xam ni maanaam ñi jiite association yi ak ñi jiite ñi jiite bërëbu sàkkukaayu xam-xam yi ak borom xam-xam yi ak wootekat yi daje gi ñuy daje jëmmi daje gi ñuy daje rek ci conférence yi ak tamit ci wàllu euh, table ronde yi ak ci séminaire yi loolu échange lay jur ak tamit dimbalante ci wàllu daaw lay jur te loolu day feeñ ci ñi nga xam ni ñoo nekk ci seen ginnaaw ak ñoo nekk seen ron seen ron loolu dafay jur ak benn boo xam ni euh, wala dafay participer ci benn le ci benn le sàpp wootekat yi ak benn le sàpp ñi nga xam ni ñooy ñi ah. saataane ci ñoom Euh, loolu tamit loolu bokk na ci li muy jur indi mooy barrage yi amoon ci association yi ba nga xam ni kii nekk ci association bi dafay jàpp ni moom effort am yépp ci wàllu daaw dafa war a yemale ci association nga xam day yëg day jëf ay effort am ci liy jëmale association rek rek loolu fàttaloo ko ni ci moo boppam uxuwa al imaaniya bi nga xam ne moo dajale ñépp li laaj mooy ñu xam ni ñun ci boppam dañuy woote jëme ci lislaam mais woote wu ñu jëme ci ay kuréel woote wu ñu jëme ci ay association ndax association yi ay moyen la ngir woote jëme ci yàlla ba defee dañuy fàttali jubluwaay bu mag bi tax association yi judd bi tax tamit association yi am ba defee barrage boobu lay bu defee comme ni mu amee léegi médecin sans frontière ci lañ dem tamit ba euh, amal euh, ay ulama yoo xam ne sans frontière xam ni association yi mu nekk xawaajis ci seen amal daawa yi def vision boobu bu ko tabaxee ci borom xam-xam yi loolu mooy rogalaat wàcc ba ñi nga xam ni ñooy déglu borom xam-xam yi bu ko defee loolu danañ jur euh, ak bennoo ci wàllu déggoo noonu tamit du jur ak bennoo ci wàllu kàddu ak sàrde kon loolu bokk na ci njariñ euh, dimbalante boobu ak tamit échange boobu am ak participation collective bi nga xam ni euh, mi am ci diggante daaw euh, doaat yi ak dimbalante boobu am na lu koy feeñal muy site yu bari nga xam ni am na Euh, ci internet nga xam ni mbokk yu baax ñoo ko taxawal nga xam ni fexe ni di ci invité ak di ci jàngale waxtaanu borom xam-xam yu bari ak talabatul ilm yu bari nga xam ni amuñu di xaaj ak seen ci ñi nga xam ni am nañu asaabu dañu bokk ci euh, ñi amee manahij saxiixay ci wàllu daawa amuñu ci xaaj ak seen bu ko defee loolu tamit dafay di xawaadis yooyu ñu waxoon ci wàllu association yi bu ko defee ñu xam ne ñun ñëpp benn cause bi euh, moo tax ñuy yëngatu sit yooyu bari na masalan lu mel xam sa diine moo xam TV bi wala rajo bi wala noonu tamit dégg diine TV bi wala sunna TV ak yeneen yi nga xam ne bari na ci ay sites yoo xam ni mbokk yi amal nañ ko ci internet juróom-benneel bi ñuy jeexalee ci wàllu yi mooy taxqiqul uxuwati iman ya wal islaamiya maanaam borom xam-xam yi jéem nañ ci seeni effort ngir amal euh, mbokk l'islam bi ak dëggal ko ak euh, jéem ko réaliser ci jéemi société bi loolu feeñ na ci ay mbir yu bari feeñ na ci tuddante ay doom tur gorowante bi am diggante borom xam-xam nga xam loolu màndargay bëggante la ak tàppoo xol yi nga xam ne loolu xool ñu ci association ak nangam euh, ziarante bi am moo rawatina jamono bu amee kenn ku feebar ci doaat yi nga xam ni ñi koy seeti duñu xool duñu doon rek ñi nga xam ne ñoo bokk ci association ba mu loolu ci ak euh, léeg-léeg am ku wàññeeku ñëpp teew ci ñi nga xam ne ñoo ahlu sunna euh, fekkee tashiam wala salaatu loolu ci boppam bokk na ci nga xam ni euh, dafay dëggal al uquwa te loolu borom xam-xam parce que parce que parce que maanaam def nañ ci participation bu baax beneen bi aussi mooy euh, laaj bi li nga xam ni borom xam-xam yi ak machaayix yi jéem nañ cee taxaw ak joxe ay conseil ci ñi nga xam ni léeg-léeg dañuy juum ci duaat yi wala ci shababu saxwa wala shababu daawu duaat yi shababu daawa juumte yi ay borom xam-xam ci wootekat yi dañ def ay effort yu mag ngir génn siwaat leen ngir jubanti leen ci loo xam ni lu public la wala loo xam ne tamit lu privé la comme ni mu amee université bi lu bay ak jógee ak ñeneen def nañ ci ay jéego yu mag ak ñenn ci doxaat yi bañ demee ba tàmbali di am ay yenn juumte yo xam ne dugg nañ ci yenn saxaat yenn euh, mabaadi ahli bida taxaw nañ ci nasiha leen ci euh, biir euh, loolu ci boppam borom xam-xam yi taxawee nañ ko noonu tamit solidarité am na ci borom xam-xam yi noonu tamit borom xam-xam yi am nañ taxaw Euh, ci dimbale société bi ci jamono joo xam ne nekk na ci euh, problème ci jamono jooju nga xam ne xooluñu ci euh, koo xam ni amee na mabda bu baax wala amee wul mabda baax wala bokk na ci association yi wala bokk ci association yi comme ni mu ak fayalaanaat yi te donation yi nga xam ni joxe nañ ci ay ndimbal yu bari association yu bari am nañ ay taxaw ci dimbali seen mbokk jullit noonu euh, tamit mën nañ tudd ci loolu tamit sodooku zakat euh, bi nga xam ni euh, xaajjawul ki bokk ci association ak ku ci loolu te bokk na ci taawun bi am diggante wala effort bi nga xam ni borom xam-xam def nañ ko ak dawaat yi def nañ ko leen ci association yi ci ñu ne nga xam ni ñooy askan bi te loolu dafay participer ci di noyal seen xol ak tamit wane ni ñii ñoo bokk euh, lépp parce que bi ñu amee naqar ak siis dañ ko bokk ñoom loolu bokk ci li benn la sax bu jullit ak dimbalante bi am ci koo xam ne am na jafe-jafe ak euh, nattu ci duraat yi ñu taxawu ko euh, loolu am na ak defar defar diggante yi yàq ci biir mbokk yi moo xam diggante sëy yi wala diggante famille yi ak léeg yenn wute yi am ci mbokk yi loolu tamit borom xam-xam yi taxaw nañ ci ci anam yu bari loo nga xam ni jur na euh, bokk na ci li participé ci benn benn leen sàppe jullit ñi euh, kooku mooy loolu unsuru saari unsuru saari bi euh, danañ ci jaar jaar bu gaaw daanaka ay xalaat la yoo xam ni am nañ ko ci asali wala yenn wasaali yi nga xam ne danañu participer ci amal benn sàppe julli euh, bi ci njëkk mooy euh, faw effort am ak ñu liggéey ci amal cosaan yi xam ni ci la bennoo xeet bi di mën a taxaw rawatina juróomi cosaan yi bu ci njëkk mooy euh, bennoo ci wàllu pas-pas xam nañu borom xam-xam yi def nañ ci effort wante effort bi faw mu gën a yokk gën a law beneen bi mooy bi bennoo wala ñaareel bi bennoo ci fexe ba suufar ci askan bi ak ci population bi euh, dem noonu ci wàllu njiit te mooy topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam muy tawxidu mutaaba loolu tamit euh, bokk na ci yi nga xam ni taxawal ko dana yombal benn bi ñetteel bi mooy waxdatul masaadir wal maraaji ba source yi ñuy jëlee fexe benn la ko ndax source yi bu nekkee benn loolu lu muy jur mooy gis-gis yi nekk benn loolu lu muy jur tamit mooy jëf yi ak pratique yi nekk benn te loolu dafay benn rek sallu ñeenteel bi mooy waxdatu sha'ir wa mooy fexe ba nga xam ni euh, màndargay islam yu mag nga xam ni day laaj ñu taxawal ko wala feeñal ko euh, ni ramadan yeneen ak yeneen sharaaya yi maanaam ni ñuy jaamu fexe ba benn la ci jullit ñi ba ñu sori bidaa ak yi sos loolu tamit dafay bokk ci euh, liy participer ci benn la sàppe jullit ñi juróomeel bi tamit mooy fexe ba benn la jubluwaay kon yii moom mënut a ñàkk ci ngir bennoo bi mën a am faaw cosaan yi nga xam ni ci la bennoo di taxaw faaw loolu borom xam-xam yi Euh, liggéeyaat ci noonu tamit euh, gën cee euh, sonn ñaareel bi mooy alhamdulilah su si yaat xam ni wala fondement bu mécanisme yi tax bennoo gi am maanaam moyens yi tax bennoo gi am yooyu bokk na ci taalim mu wajja maanaam njàngale moo xam dañ ko orienté kon loolu dafay laaj xaj na programme yi nga xam ni école arabe yi bari léegi euh, dëppoo nañ ci programme boobu aussi école yi nga xam ni dafa nekk ci ron association wala ron doit yi nga xam ni am nañu mën xaj bu leer war nañu fexe tamit daje ci bind programme maanaam bind Euh, matière bi nga xam ni moom lañuy ñuy jàngale fexe dëppale ko wala dëppoo ko indi tamit ay rectification yi nga xam ni tasxiixaat yi nga xam ne léeg-léeg am na ci xaral bi am ci programme boobu loolu da jur euh, benn ndax ñiy génnee foofu li ñuy jàng loolu day influencé seen i seen i tax benn leen programme loolu bokk na ci liy benn caaxaan yi yi génn foofu euh, aussi tamit foofu warees na amal tamit centre islamique yoo xam ni dafay aju ci wàllu xam-xam yu spécialisé ci xam na parce que bi ñuy dund société boo xam ni euh, xaj na matérialisme dem na ba euh, dominer xol yu bari njàng tubaab aussi influencé na société sénégalaise ngir ñu tàmbali ko moom dafa jafe lool loo tax euh, association yi ak i borom xam-xam yi ak borom xam-xam yi am gis-gis bu leer war nañu fexe tamit am ay centre islamique yoo xam ni dafay jàngale programme public bi euh, moo am ay école cycle yi ñu xam la ak tamit école de formation yoo xam ni dafay dem ci ay domaine xam-xam yu dugal ci njàngale islam maanaam njàng boo xam ni njàngale islam bu ko defee euh, danañu mën a jàllale euh, xam-xamu islam ak tamit pas-pasu islam bu leer ci doomu jullit yu bari mun leen orienté ci côté boobu aussi jàngal leen li ñu soxla ci ay métiers ci wàllu atam loolu tamit lu ñu war a xalaat la yi ay points la yoo xam ne dañ koy tudd pour ñu xalaat bi ensemble euh, ba mooy war nañoo tamit liggéey ci amal al i'lam al hadif al muntazim bil manhaj al islami muy média boo xam ni dafay am jubluwaay te tënku ci euh, manhaj loolu tamit lu ñu war a liggéey la ndax comme ni ñu ko ci média dafa am doole ci population yi ak tamit ci euh, opinion publique loolu tax euh, ki la gën a jekku média moo la gën a jekk xalaat na loolu tamit li mu ci nit ñi mooy gën a jàll loolu tax fii daaw suñu yëpp amul média boo xam day mën a yegg ñëpp ci baykat bi ak sàmmkat bi ak nappkat bi ni ñuy yeggee ci intellectuel bi fii ak amuñ euh, ngir mën a fexe defar li tax nit ñi julli ñi mën a benn ci Sénégal loolu dafay joxe kon loolu mënut a ñàkk ci jamono ji moo xam rajo la moo xam télé beneen bi mooy al-amal ala al-istiqlal al-iqtisadi wal intiba am ba nga xam ni euh, li ñuy naaw ci wàllu daawa dañ koy mën a financer suñu bopp loolu nag fii ak amul booba dépendance moo ci am te dépendance boobu li muy jur mooy yow programme bi ngay teg pour jaar ci selon sa ak say euh, objectif ngir yegg ci moo xam defar pas-pas yi defar jaamu yàlla yi defar jukko yi ci société bi ngir benn mën a am sa programme lu bari doo ko mën a respecté ndax euh, amoo indépendance économique li ko waral mooy yeneen programme mooy ñëw yoo xam ni euh, dana dana perturber sa sa programme boobu ba defee daanaka taxawul day leen mooy am ci ci wàllu loolu nag euh, bu amee li muy jur mooy ñeenteel bi nga xam ni moom la ñu euh, tudd nii mooy ak tax si daal bi moom saaba ak taxu yi mooy planification boo dafay am ci wàllu daaw planification bu amee ci wàllu daaw nga xam ni yow xam nga fi ngay jëm xam nga fi ngay jaar xam nga noo fay noo fay jaaree yan mooy ngay jël yan ressources ngay utiliser. boobaa boo amee istiqlaal iqtisaad bi da a sa programme boobu taxte boobu yëpp amul aussi nga xam ni moo xam at mu nekk wala six mois yu nekk wala nangam ci at yu nekk daawa bi ci lii lañ koy gën a accès programme boobu yëpp amul ngir ñu mën a yegg ci résultat yi ñu soxla ci benn lañ te dina dem rek daawa istijaaniya daawa ashraaiya lay wala taxaw ci comme ni bi amee nga xam ni selon rek xew-xew yi ñoo ñoo ñuy programme ñooy programme daaw mais du ñu ñooy programme suñu daaw ñoo koy programme suñu bopp kon tax boobu il faut mu am ngir daaw bi mën a am ay ay objectif ak ay résultat bu taamu am il faut mu am tamit muy suivi bi il faut mu am loolu dafay laaj ay kuréel topp loolu euh, ndax tax tey bu mutaabaa mun a am kon faaw tax mutaabaa mun a am tax bu amee mutaabaa amul tamit amul njëriñ faaw mutaabaa am ak tax yi jéem ko évaluer jéem ko jubbanti seet li ñu màggale fu ñu bëgg a def ndax yegg nañ lu tax yegg bu ko defee mooy indi tasixaat yu bari mooy tax ñu mën a avancer loolu mënut a ñàkk ji ngir ne ci sàpp benn rek sàppe jullit yi ndax loolu am na ci loo xam ni dañu ko wax ci bi mun na nekk maanaam am na ci loo xam nag xayaal yii la wala mus maanaam mun mun mun bu nekk mu saxil tamit mutaadir la ci jamono ñu toll mooy société sénégalaise yëpp wala population yi yëpp ñu bennoo ci benn kàddu bennoo ci benn sàppe loolu xam ne ni ak réalité yi ñu dund loolu mënu amee noonu kon euh, kon loolu jéegalo bu mag boo xam dañ ciy war a jox gaye nga ca loolu nag day laaj planification am na boo xam nag mën nañ ci maanaam tawxid wala waxda boo xam ni euh, court terme la boobu mën nañ cee yegg wala mooy terme mais long terme moom madal bani bi boobu mooy population Sénégal boobu moom day laaj euh, effort ak planification troisième bi mooy ci asali bi ngir taxte wax dal sof mooy amal ay nadawaat table ay séminaire wala ay daje yoo xam ni jamaat yi dañu àndandoo te programme yi aussi ak activités yi rawatina ñi nga xam ni ñoom délégué euh, manhaj ngir tamit gëstu ci wàllu mbiru daawa bi waaw loolu aussi euh, bu amee dana gën tax ñu xam sooxe yi fan la nekk bu defee bu ko defee nag loolu mooy indi tasixaat ak rectification yi am suñu biir ndax sommet bi bu bu bu bu bu bennoowul maanaam xidma bi bu bennoo muy base bi ngir mu kaay dañu ngir mu mun a bennoo dafay jafe kon bennoo bi il faut mu am ci kaw ak ci te loolu lii bokk na ci li koy li koy indi euh, ñetteel bi mooy gis nañ tamit war nañu mun a amal ndax xew-xew yi jàll war nañu mën a amal benn commission boo xam ni musharaka maanaam commission la boo xam ni musharaka li ci jublu mooy مكونة من جميع الطوائف maanaam tawaayif yi am fii Sénégal yëpp yi jéem a fexe ci wutal commission boo xam ni tawaayif yooyu dañ cee amee euh, les mu taxas maanaam mu am tamit ay spécialité yu bari ñu seet si tamit spécialité yi euh, commission boobu lan mooy liggéeyam mahaamuha mooy asahra ala himayati muqaddasati islam rabatin al mujtama al Sénégal ndax lii bokk na ci nga xam ni mooy xawaasi musharaka la nga xam ni ñëpp daanaka muy usuli ak yenn sawaabi yi daanaka tawaarif yëpp daje nañ ci ci Sénégal amaloon nag benn commission bu mel nii loolu eh, dina dimbale yeneen manahij yi nga xam ne dañ xaata lañu bu ñu jegee a manahij saxiixa loolu dana tax ñu gën a mën a rectifier eh, seen seen seen gis-gis yàlla mën tamit ay njariñ beneen ba tamit dana tax eh, kàddu lislaam am doole am siqal fii Sénégal dana tax am siqal réaction yi tamit tax mu am impact ci société bi bu ko defee ñu am ay daje yi def ak yu mel noonu euh, juróomeel bi nga xam ni xëy na foofu la ñuy jeexalee mooy tasis rabitati a lil ulama wa du'aat fi Sénégal tamit xalaat la nga xam ni xalaat nañ ko ci asalika laajate sox mooy amal rabita sunniya boo xam ni lil ulama wa du'aat fi Sénégal waaw loolu euh, ndax bu amee xam ni du bokkul ak association nga xam ni association yi ñooy am benn amal coordination noonu yii borom xam-xam yi ci boppam la xam ni euh, barrage euh, association ak intérêt association yi ak aval association yi ñoom duñ ko ci nekk maanaam dootu leen condition bu ko defee fii euh, borom xam-xam yi amee lu mel nii Euh, bu ko defee lii am ay njariñ yu bari yu mën a indi ndax li ko waral mooy comme ni ñu waxee nii am na waxda tatatallabu marxaliyati taxtataha maanaam waxda bi dafa laaj ñu doxee ko par étape kenn mënul tëb ci kon par mooy asal maanaam saxiixa yi ñooñu waxda boobu dañ ko jëkk taxtay dañ ko jëkk am loolu nag ñu ngi tàmbalee ci ñi nga xam ni ñoo nekk ci sommet bi te jiite daawa bi muy borom xam ak doaat bu ko defee nag euh, benn bu amee foofu euh, loolu dana jur benn ni ci ñi topp seen ginnaaw ak ñi leen di déglu bu ko defee tamit loolu dana jur tamit surtout bu fekkee asxaabu manage yi nga xam ne mutaqaariba la sax ñu boole leen ci bu nekkee ay borom xam loolu dana indi ñu mën a jubbantiku ci daje yooyu ci ay euh, dëng-dëng yu bari yu amal ci ñoom euh, bu ko defee loolu mun na nekk benn xaayida nekk benn intilaqa boo xam ni li muy jur gannaaw ga li muy li muy may mooy ñu mën a ibbeeku ci yeneen yeneen euh, tawaayif yi ci mbir yi nga xam ni ñoo ko bokk euh, loolu gis nañ ni mun na indi marxala axira li nga mi ni euh, ñu ñëpp moom la ñuy dox ngeen jëm ci te mooy population bi ak société bi yëpp euh, seen sàpp mun na nekk benn seen kàtt mun a nekk benn lii daal yenn xalaat yoo xam ni li ci jub la ci dëng ci man la yoo xam ni gisoon nañ ko ci tomb bi Euh, ñu koy julli ñëpp euh, xusuur bi ci am ñaan yàlla def ñu tawfiq ak sadaa hada sallallahu wa sallam ala rasuli wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullah léegi nag li des mooy ñaareelu vraiment monsieur Thierno Diallo am na ko wax wax dëgg yàlla li ñu doon xaar ko moom gis nañ ko nañu mun nañu wax gis nañu pour loolu li ñu doon xaar ndaxte comme ni ñu xawdoo bi mooy am xuudul mabzula fi sabil waxati sotti muslimina fi Sénégal effort yi nga xam ne def nañ kaa def ngir bennale sàppi dund ñi ci Sénégal gis nañu nu ñu ko terete terete bu jaar yoon alhamdulilah daf ko xaaj ci ñetti élément moom nag mu ne day jël ñaareelu élément bi ak ñetteelu mu exposé kon mu bàyyi li ñu doon déglu di participer élément bu njëkk bi mooy dawru ulama wa duaat wa muassasat wal hay'at al islamiyya fi sabili tawhid al wahda ginnaaw bu mu gaaral ñaari topp yu mujjee ñaari élément yu ginnaaw bu mu gaarle ñaari tomb mooy al fuutu mabdula min al masayix wa duaat fi tahqiq waxdati Sénégal ak ñetteel bi mooy asaalibu tahqiq saf bu nekk bu tënku ci ay tomb kon mu delloo ñu loolu nañ ci am xalaat ñun nañ ci forme benn xalaat ñu def ko li nga xam ne mooy suñu participation kon dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla bay ci li mu leer wax dëgg yàlla leer na te baax na trop ñu ko tegee. kon li def mooy ne ñu jéem fagaru jéem joxe aussi suñu participation dem ci unsur bu njëkk bi mooy élément bu njëkk bi incha allahu kon li ñuy desee ci waxtu bi bu xoolee bareetul loolu ndaxte sept heures ñaar fukki minutes ak juróom moo ci des kon dañuy jéem def trente minutes wala trente cinq minutes wala quarante minutes ñu def ko ci atelier yi incha allah wala ñu def ko ci participation yi kon dañ koy delloo kàddu bi bu dee def loo xam ne duñ koy yokk incha allah jazakumullah xayran asalaamaaleykum mën nga xam ne mooy ku nekk rek dañ koy yéema jox mu yëkkati ñetti tomb yoo xam ne ci daawul ulama wala daawul muassisat islamiyya fi tahqiq al-wahya ñetti xalaat euh, ala kulli طيب mel ni am na ñu yëkkati kàddu nee na moom lu mu gis mooy ñëpp dañu passé. wante mën nañu tàmbale ci mag ñi fi nekk. incha allah docteur après Oustaz Kébé Oustaz tàmbali ci man bi ah docteur Kébé di ñaan yàlla mu defal ko tawfeex bu fekkee ni ci tomb bi rek la ñu tënk naa ci yem mais ci biir am naa ci benn gendeeku bu ndaw bu dee la aju ci borom xam-xam yi jàpp naa ne am nañu lool bu rëy ci dend lañu nit ñi wala jigéene facteur yi nga xam ne teqale na jullit yi bari na waaye jàpp naa ne ñàkk xam lislaam xam ba ca war joué na ci rôle bu rëy donc seen rôle ci jàngale lislaam ba nit ñi xam lislaam lu damay wax ne atte yi atte yi nga xam ne mooy ay al ahkaama tey na nit ñi sax ñu bari xam nañu waaye xam lislaam dëgg-dëgg xam jubluwaay xam lu tax nit ñi di ci sonn di yëngatu jàpp naa lu manqué la ba kenn ku ne mën nga nekk ci benn liggéey boo xam ne bii bu am solo la ci lislaam liggéey bi sax day am solo ci lislaam mais sa ñàkk pay jubluwaayu lislaam yi day tax nga foog ne liggéey boobu ci loolu rek ci la système yëpp bu ko defee doo gis nécessité ànd ak keneen pour jàppalante moom donc jàngale lislaam jàngale bu leer loolu am na solo tafsir tam ci li ñu tuddee al manhaj al wasati nga xam ne ci la nit ñi mun a daje mais tant que ñoo ngi ci kenn ku ne nekk ci taraf boo xam ne bii bu sori moroomam la jàpp naa ne mun na jëfee li ñu daje beneen bi mooy du ñu yem ci jàngale mais borom xam-xam yi ñoo mën a organiser yi donc ñu fexe te loolu nga xam ne gëm nañ ko ñu utal ko kuréel bu ko bu ko bu ko yelu def def proposition moo xam kuréelu borom xam-xam yu sunna la wala kuréelu borom xam-xam lislaam tuukuur nga xam ne day dajale borom xam-xam yi ñu ñu ñu ñu defante mu naa saxal jàpp naa ne loolu loolu la boo xam ne bii bu mënul ñàkk loolu li ñuy dimbale mooy boo demee ci société yi nga xam ne ay société yi adduna yi da gis ñi bokk ñi bokk domaine ñuy am ay ay barab yoo xam ne yi ci la ñuy attante ci seen biir c'est-à-dire si la ñuy ci seen biir ba kenn ku ne mën na yëg ni am nga loola manqué dem nga def fële benn fatwa boo ñëwee ci kuréel bi ñu jubbanti la am nga bu ñuul boo ñëwee ci kuréel bi ñu jubbanti la yooyu yëpp ñu ko dajalee jàpp naa ne borom xam-xam yi yu baax la te te nokta bi moom li ko jeexal bañu yàgg ci farat bi mooy juhur yi nga xam ne yi def nañ ko ci jéema bopp benn la jullit yi jàpp naa ne léegi na sulaas yi bi ñu def daaw wala daaw jéeg étape mu jël cest am na am na ay ay ay ay ay yu bari ci ci wàllu ci wàllu des associations islamiques ànd ak jamaa département Al Falah ànd ak jamaa yi nga xam ne ñoo fi des associations islamiques du yooyu yëpp ay effort la yoo xam ne yi benn bu ci ne am na lu mu def mais am na lu mu manqué même en 94 bi ñuy jéem sentiré travail bi nga xam ne interdit étudiants yi ñu ngi koy def manqué na manque boo xam ne bii kenn doon yaa ngi sama association def loo xam ne bii amul na soog sa morom ci la ñu amoon initiative dajale élèves yi étudiants yi ci benn kuréel boo xam ne day dajale yëpp institution donc am na ay dugub yu bare bari yoo xam ne yii xaw na ci diggante bi maa ngi jégalu parce que xam na yaa ngi ci gàtt salaamaaleykum. maaleykum salaam. في آخر فتنتقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ñi ngi rafetlu waxtaan bi bu baax di yëg ne jëriñu nañ ci bu baax Euh, ñun dañuy wax rek ci ñetti yëf yoo xam ne gis nañ ne buñ ko defee dana doon dimbal ci benn le kàddu jullit ñi benn leen seen sax ki ci jiitu mooy bari lu ñuy waxtaane ak ñoom solo soo xam ne am na ko solo ndax ñu bari daa mel ne yëguñu lool ñaareel bi mooy usus yi nga xam ne bu ñu bëggee bennoo bennoo bu yàlla gërëm faaw ñu bennoo foofa loolu it ba tey dafa benn mel ne am na ñu bari ñoo xam ne loolu leerul si ñoom day mel ne dañuy jàpp ne boo demee dëkk wala ci koñ buñ bennoo rek donte bennoo wuñ ca sa yàlla bëgguñu bennoo fa day mel ne ayati day mel ne loolee ku ca woote ku dul ci seen yow da ngay woote ak tàqalikoo waaye wootewu ak bennoo te fekk mbir ma tëddiwul noonu ndax borom bi dañuy wax sumu bi hablillahi jami'an wala ci safar benn bi ci topp te a am moom it mooy borom xam-xam yi toujours gën a jege wut loo xam ne dana leen dajale moo xam par naa ngi weer lay moo xam par at lay doon at yi loolu dana leen di dajale lu mel ne lii ñu def tey doon na lu am am solo comme ñett lañu wax mooy ci ñett yooyu ñu ngi ñaanal yàlla nangul ko dafa barkeel xam ci seeral yëpp yi dañ demee bu baax a baax ci jataay bi yàlla na yàlla dimbali ba liñ fi jëlee ñu mën koo tasaar yi bu wàllu ci ñeneen wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain léegi dañ ko mbokk buy jël kàddu rek boo xaale ci rafet wax lu gàtt bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah man maa ngi tudd Xaalid Diop ñu ngi contribuer ci waxtaan bi di indi suñu xalaat ñetti point yi ñu ñu laaj benn bi xam ne moo njëkk ci bi ma njëkk a xalaat mooy damaa gis ne benn gi ñëpp d'accord nañ ci ne du gaaw kon ni ñu koy waajale man ci laaj si mooy daaray alxuraan yi ñu ngi génne ay xale yu bare bare bare yoo xam ne cycle boobu bu ñu ko xoolee fii ak ay année ci kanam yaakaar naa ne ñooñu bu fekkente ne yar nañ leen ci yaru islam loolu yoon la ci euh, ñu am majorité boo xam ne dañuy xam sunna su ko defee loolu li ma ci gis ci li ci sooxe moom ñu bare bari ñu ngi génnee ci daara yi waaye suivi lañ doon am ndax daara yu bëri bu ñu génnee exemple daara yu génne dix personnes yi cinq personnes yëpp dañuy delluwaat ca seen i wajur ñu delluwaat leen ci yenn yoon yoo xamante ne nañ leen leeral woon te daara sunna ya ñu continuer loolu ab liggéey la boo xam ne dafa war a am man loolu gis naa ne benn ginnaaw ab liggéey la te kan loolu war nañ cee xalaat bu baax bokk na ci li benn la doon njëriñ la cay doon ba léegi euh, ñaareel ba mooy ñu bañ a découragé di di ko dëkkal ci noppi nit ñi muy mu mu mu mu muy jàll ci marché yi jàll ci rajo yi jàll ci nopp seen nopp yi ba nga xamante ne dana jëng ci lu war la boobu ëllëgee bu ñu jëlee ay matuwaay bu kenn wala yëpp du du soof kenn. ba mooy fexe ba nga xam ne ñiy woote ci bennoo bi nga xam ne ñoom lañ seen loxo nekk ñoo ne seen comportement ñu gën a dëgër ci wane bu rafet ci seen jëmm yi wane lu rafet ci waxeen ak luy tax nit ñi xemmee ni ñu nekkee ba tax bu ñu wootee nit ñi mën a bismillah eh, Abdoul Ahad Fall alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bon ci eh, taxawaayu borom xam-xam yi ak eh, mu association yi ak xarakaat islam yi ci liy benn ne xeet bi bokk na ci li ma ci jëkk xalaat mooy di amal ay ndaje ak ay formation yoo xam ne dafay boole booleem kuréel yi nga xam ne ñoo fi nekk euh, seen membres yi nekk ci seen rôle di leen boole di leen defal ay tàggat ak ay xeeti formation euh, bokk na ci maanaam amal benn mën xëy taalim yi boo xam ne wax xat day nekk xam ne ku génn cee mu asasabee ak ku génn cee bu ñu dajee ñoom ñaar bokk nañu mbalk mu naanee su ko defee loolu euh, dana gën a bennale seen gisin ak seen i maanaam déggin kon jàpp na ni bokk na ci yi ne euh, taxawaay la boo xam ne borom xam-xam yi jot na ñu taxaw ci fexe ba bennale maanaam yi ne maanaam yi tàmbali yi nekk ci assaat yi nga xam ne xarakat yi nekk ci biir bokk na ci euh, amal Euh, comme ni ko mbokk yu junj ci biir waxtaan bi dana i'lam boo xam ne xaalis lay nekk boo xam ne ñëpp dañ ci mën mu assaat yooyu xarakaat islam yi yëpp dañ ci mën di gis seen bopp waaye seen i doxaan man dafa mën di toog ci manaabir yooyu su ko defee loolu dana tax ñi nekk ci base bi dana dana leen gën a mën a benn kon ci gàttal ñett yooyu salaamaaleykum mbokk mi leen di ziare di leen nuyu ci muhaadara bi nga xamante ni njëriñ bi dèjà feeñ na te benn bés a fàtte ñëw comme ni ko ni ko sàkkoo ci tomb bu njëkk bi nga xamante ni ñu ko doon déglu mooy suñu wàll dawul bu loma kër bi Idriss ñàkk dawul bu loma wa duaat wal masad wala islamiya pour waxta bi ñoom ñu mën koo tax ci seen wàll ñoom muy lu am solo la parce que loolu ci jamono yi ñuy waxee nii eh, ñooñu ak feneen pour pour fii suñu amee wax am bi danañ danañ am wax daal. xamal ni ñi nga xamante ne ñoo ñoo ñoom lañ ñoo am xam-xam. jiite ay mu assasaat surtout ay école bu ngeen ko waxee wala du école ay mu assasaat ay jàngat ñooñu ñooñu suñu suñu jiitoo ci wax da ne wax da dana yomb su fekkente ne comme laaj si ni wax da yi jéem ñu ay yoon mais tout le temps agressé ñu ñu ñu agressé te ñooñu fa su jaar mooy suñu wax da am na ci seen biir ci suñu biir. so kon day laaj bu ñu pare ba xam ne jiite ko ñu seet li ñu manqué wala boog yeneen réew yi la la fa am ñu ko jëgaale ko wala diisoo ak li ñu def exemple mooy soo demee Côte d'Ivoire soo demee Gabon Sénégal ñu leen ëpp ay jullit ci pourcentage bi mais wax dafa am foofu ak boobu amul fi am benn jamono kenn nit benn gis-gis Gabon ñu jàngi Sénégal dafa ñëw. ne moom dafa bëgg jokkoo ak euh, askan islam nekk bii mais bu dafa am problème fu mu dem ñu ko fii la fu mu dem ñu ko te fu mu jógee yu loolu benn nañ am foofu soo demee ko dafa mel ni ma fa nekk lu tax kii lan ñu wute kon li ma bëgg a wax mooy bu fekkee ne loolu am wax dëgg bu ñu ko dajalee bari boo xam-xam yi ñu ko buñ buñ buñ ci jiitoo ñu dem seet ñu leen noonu ñun lañ màgg ñu dëgg ci noonu li tax ma ne borom xam-xam comme ñu ji parce que boo gisee jamono ji ñu wax nii ci ci bind ci lislaam yàq ci dara euh, dara lislaam bi mënu ko yàq wax ji bëri na bëri démb rek am na benn na ko élève la ci Suisse Europe tontu na ko tontu bi nag man timmuma euh, ko mais moom tontu na ko te moo ko doon jàngal sa fii ci Dakar ñaareel ñu ko wax moo ne boo ci mën a borom xam-xam yi parce que moom lépp lu ne mbott kii su fekkente ne am na ñu ne ci ginnaaw dimanche ñaari dimanche yu paase toog naa koo xamante ne professeur la comme moom moom moom ñoo ko defee ñu ngi ñu bokk ci même faculté mu ne moom bi ñu bi ñu paree bu génne leen livre livre wax na ci man maanaam bu ko génnee mu dëgër bopp génne mu ne moom moom boo gisee ñun du nekkoon kii ci njàng bu mu njàng seen wàll. li waaye am ci diplôme maanaam adab ak classique yi lettre classique muy latin grec saw jéem na pour ànd si mu mu daal moom mu daal waaw li war a mën a kooku suba xam naa dinañ ci am jotaay waaw incha allah incha allah ginnaaw bismillah rahmaan rahim salaatu wasalaamu ala rasulillah euh, kon ñu ngi sànq Cheikh Seydi Yaya Kounta Euh, gaaral mu gaaral nga xam ne euh, même bu ko yónni tam am na luñ ci jublu la envoyé tomb ci wàllu dawru ulama al fuqaha wal muassasat wal hayat al islamiyya fi tahqiq al euh, wahda xam naa ne bu ñu jëlee ñaar yi ci kaw rek wax yéeme am foofu rek yeneen yi moom dañ ciy topp mooy que ne ulama yi ak duwaay yi bu ñu jéemee ànd ci benn saf ànd ci benn manhaj ànd ci benn ittijaa yaakaar naa mu asasaat yi ñoom ñoo koy sos di ko jiite kon mu asasaat yi ak ay at yëpp lañuy topp ci gannaaw loolu muy tekki ne mooy ñoom ci seen bopp bu ñu àndee ci kàddu wala ci liggéey comme ni ko docteur loo waxee tey ànd bi yëpp mënoon am waaye nag ci asaasiyaat yi bu amee Euh, li muy tekki ni mooy seen taalibe yi xam ne ñu ngi féete seen gannaaw ñoom itam dañu jéem a jéem a jéem a mel noonu loolu mooy li muy tekki ne manhaj bi ñuy liggéeyee ci wàllu jàngale ci wàllu woote ci wàllu jokkoo ci wàllu yegoo ci biir réew loolu bu amee rek seen diggante kon mbir mi yëpp da yomb bu ma joxee misaal yi ci Sénégal ci Dakar diggante ñoom ak dëkku kaw yi infisaal bu rëy moo am seen diggante ci wàllu yëpp jàngale ci wàllu daawa euh, foofu am na ay ulama yu bari yu nekk ci biir àll bi def seen dictatum comme ni mu leen neexee bu fekkee woon ñi nekk fii tey ci Dakar tam na ñoom ñoo gën a bari xam-xam ñoo gën a bari doole ci wàllu daawa bi euh, déggoo bi ak yëgoo bi ak ànd bi amoon na rek konoon fale itam loolu day law ba ñëw foofu moo tax ñun toujours ñu ngi wax nañu jéem a amal fi benn laj boo xam ne lajnatul ulya boo xam ne day tiim ci muassasaat yi ak ay aad yi ci wàllu yarit ci wàllu awa ci wàllu alal akal ñu ittifaq ci nuqaat asasiya yoo xam ne yooyu buñ ci ittifaqee ngi yëpp yomb jafe nag waaye lu jafe wax ne góor na ko toppatoo mu mu liggéey ko ndaxte mbir mu yomb moom duñ ko jox Euh, góor góor lu jafe lañ koy jox kon nañu euh, góor góorlu insha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah dafa am ñetti kii yu ma seetlu woon. Muxtaar Gueye ñetti tomb yi ma seetoon yoo xam ne dina bokk ci daruriyaat yi ci sama gisin pour wax da li ñuy wax bu njëkk bi mooy comme par exemple euh, ñu nekk mu tamit isi ak ahdaaf maanaam suñuy objectif yi nga xam ne moom lañ teg ak liñ bëgg ci euh, umma yi ci peuple bi maanaam mu nekk loo xam ne day leer ci ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ soxla comme euh, li benn saxaat yi doon wax rostum ixraajul ibaadi am ibaadati rabbil ibaad te loolu noonu ngeen ba gën koo féete kaw bu ñu xoolee alam islam yi bi ñu tudd fi mu toll nii doy na rek sëkk ci ñenn ñi doy na sëkk ci ñoom tuuma nañ dafay dund alquran ak sunna waaw dina am pour nga xoolee bu xoolee réew yu metteel fitna yi fay am yu bëree bëri bëri yenn saa yi boo nee dafay dund alquran ak sunna fii sax am ñu commencé ci loolu nag boo ci boolee tamit kër yu bu say affaire bañ a leer mën nañ daa gën a tuumaat kon dem ñu bëgg leer na nañ ko génne awaan yi ñëpp xam ni carrément lii lañ bëgg ñoom deuxième bi ci li ma seetlu mooy comme suñu njiit alhamdulilah léegi ni ñu ko seetloo ñoo ngi daje chaque jour tansi photographe yi nga xam ne ñoo ngi ci suuf yenn saa yor suñu làmbe rek di wax njiit yi mën nañoo tansi daal ñoom alhamdulilah wax dëgg yàlla des am la am na xeeral mais li ñuy tansi bu ñu wàccee ñu ciy waxtaan ñi nga xam ne ñoom la jiite di kat daaw bi maanaam tan li ñuy a tansi maanaam ñëpp en train de aussi fii toll comme li docteur wax ni ñëw ci def ay xutuwaat ndax ñëpp doon nañ laaj li du tax daje boobu ñu dajoon fële amul bëri ba léegi amatul chaque jour ñu ñeen ci ci ci suuf léegi tam si yooyu bu fekkee sama classe bi nañ ko mën di kii dina bokk si ñu kii ndax yenn saa yi dinañ jox ñu wax yenn wax yoo xam ñu war a dugg ci kii euh, troisième bi climatique yi moo di par exemple euh, bu ndajee ñun maanaam bu ñu kenn neewul amul loo fii maanaam nit ki mënul carrément ko dund sunna bu ma dajee nit ñi damay nëbbalu sunna laa sunna moom maa ngi ci xam ne damay dund sunna mais a ci ban jamaa laa nekk wala kii war naa mën a nekk ci mbooloo ba dem de kenn du xam ni fee en tout cas sunna laa yem rek taxaw fële après nga jox ko kii ni ñu ko jox programme bi làmbatuñ ko te ndax expérience bi feeñ si mbir man sama contribution mooy d'abord bi si njëkk boo wax ni ñuy jubay dafa mel ne nekk ñu si benn ndax benn rek ñuy woote dafa nekk. jullit Sénégal yëpp ak Sénégal nekk wala ñu nekk rek ci tawra sunna wala ak wax bu dee bu nag ñu xam ne mënul nekk ci court terme wala long terme bu sori lay doon ba am na war a jiitu loolu mooy jiitu mooy bu mujjee bi may wax loolu bu xasoon leer lu bëri li ñuy wax si yenn wuute yi si wàllu pas-pas si wàllu ñàkk diine ak yu ni mel dinañ ko dépassé ñëw si beneen bopp kon bu fekkee si cadre boobu ñuy wax li may njëkk wax mooy settantal ne ñu ni bëgg boole bu la neexee nga ñaari façon nit lañ bàyyi xel si benn façon bi mooy nekk si association islamique sunni yi comme su ko cadre suñu lay wax di seen unité donc féetale seen bopp ba pare nangu règlement yooyu ak yooyu fi leen woo tey def ko joxe seen xalaat benn ji nar gën a jafe mooy ñi jàpp ne waruñoo ñoom milité wu si association islamique bi seen bopp nay jafe ak jàng jëf ñu gis nag ñooñu boo leen di tot programme bu benn la leen dafa war a nekk ñuy jàngat dëgg dëgg dëgg te benn rek si ñett lay mën a taxaw lenn li mooy si li leen benn la lan la bu fekkee sama ñaareelu wax lañ jël boobu li jël nañ ko mooy saqran sunna leer beneen bi mooy day jóge si njiit ya wàcc si mas ñetteel bi wala mu jóge si mas jëm si lépp luy defar moom nekk imam bi si kaw nekk lu lay imposé mu wàcc fuqahaa bii gars yi di joxe ci am nañ ñuy attaque genn wàll jotoon na wane ne xiif gi nga xamante ne ni am kon loolu ñu nekk si association islamique yi ñetti kuréel yi si demoon mu doon ñoo xam ne mënuñu leen xeeb si si wàllu association ak mbooloo fii si Sénégal ñoo war a séq ay jéego nag loolu dëggal loolu woo seen association islamique yi pour ñu mën si réaliser dara wa illaa bu wéyee nii dina méttee dégg mais day mel ne ñett association yooyu danoo amoon benn objectif bu gàtt rek bu ñu ñu fàttale ndax xam ngeen ne jamono yooyu dafa am ay mbir yu jógoon surtout man association yooyu si xool ba xam lan war a def si nañ daje si dem si buntataawu kon ndax loolu loolu objectif boobu simple boobu moo leen tax a jóg wala ndax benn na rek jullit yi nekk association yooyu ak ñeneen ñu ñoom moo leen tax a kon bu fekkee ne ñaareel bi dafay gaaw lële def si suite te suite boobu li mu ñàkk mooy njiitu association yooyu ñooy daje lu ma nee njiit yi même bu président bi ndax président bi dafay am kàddu mais ñoo koy jàppale yëpp si conseil d'administration ñooy jóg ñetti association yooyu di ko dox di ko dox bi ñëpp di joxe am su joxe nee nag ñu si woo yeneen association yi nàkk nàkk association yooyu bu dee beneen wàll nit ñi nga xamante ne tënkuwunu si wàllu association yàlla digal nañu am nañ ay borom xam-xam yoo xamante ne ñooñu naw nañ leen si wàllu xam-xam naw nañ leen si wàllu jikko naw nañ leen si mën xëj bi woote kon si cadre communication bi ñuy ñuy def ñooñu nag ñooy yëkkati ay kàddu di ko jëmale jëmale si groupe bi kon boo xam ne def teg tegtantal bi yii di daje foog ñu am nag plan communication di wax nit ñi nit ñi xam fan lay jëm. ni ñuy waxee ña nekk si association bi du bokk ak ni ñuy waxee ñu nekkul si bopp association yi pour yaa dimbale incha allah si loolu dara di jàpp dinañ mën a am benn foofu laay jazakallahu xeer salaamaaleykum wa rahmatullah Daawuda Abdourahmane Fall euh, xam naa li ma bëggoon a yokk yi ci ëpp mbokk yi jaar na laaj bi tey ma am lu ma ci ñambaas euh, bi may tàmbalee mooy dañuy gis ni bokk na ci liy gàllankoor ak benn muy ubbee yu bari nga xamante ni bii borom xam-xam yi koy faral di ubbee maanaam benn masala day ñëw te dégg ñu borom xam-xam sàngam ubbee na ca te ubbee ca ne te ubbee ca ne te ubbee ca ne loolu kon ak juyoo la indi waaye du indi ak benn ma gis ne bokk na ci li ñu war a gën a bàyyi xel muy jéem a amal ak mbootaay boo xamante ni bii ñooy mbootaay yi taxawee ngir ubbee rawatina ci yenn masala yu kole wala yenn masala yi nga xamante ni bii borom xam-xam yu am xam-xam taxawee loolu dana bokk ci nga xamante ni bii dana gën a mën a jëmmal bennoo bi euh, ba ma ciy dolliwaat mbokk yi jaar nañ ca waaye nag jaar ngir intéressé bu ma intéressé muy gis nañ ni réer ak bidaa ñaar yoo xamante ni bii tamit gàllankoor bu réy la ba li ñu bëgg muy wax rek du mën a am kon kenn ci borom xam-xam yi wala mu assasaat yi wala mu assasaat tarbawiya ñu jéem a taxaw ngir amal manhaj boo xamante ni bii bu bennoo lay doon xaj na mbokk mi junj na ko nee na ñëpp benn ñoo gën a jafe mais ñi nga xam ne ñoo gën a jege mu askan ñi nga xam ne ñoo gën a jege nan ci tàmbalee ngir lan nag damay gis am solo mën a jëri am solo ba mu am solo ndax meññet la ñuy séentu meññet moom la ñuy séentu fi muy jógee mooy lan ci aw jiwu lay jógee ma jàpp ni jiwu nag ci njàngale boobu lañ koy mën a suuxate ko bu meññet bi ñëwee euh, nekk meññet boo xam day mën a boole euh, xeet yëpp. loolu daal moom li ci des sama ci wax ni mbokk yi jiit nañ ma ci wasalaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Assane wax nekk fii jàngee ci kuréel yi di rafetlu waxtaan bi bu baax a baax bëgg a jàllale sama yëg-yëg ak yenn ci luñ luñ bëgg a laaj yëgal tey mooy gën a fonkaat suñuy borom xam-xam ndax mosuma woon a yaakaar ni def nañ lu toll nii dama yaakaar ni seen liggéey ñu ngi ci rek ci école yi nga xam ni képp ko loo fayee doo ko waaye tey jii yëg naa ni seen liggéey gën naa yaatu lool ñu ñaan yàlla mu gën a yaatu lool dañu nag ah, xalalu daj suuf borom xam-xam yi dañoo gën néew fuuf ñi ci loolu gis naa ab phénomène bu génn mooy ci koñ yi koñ koñaay gis jeunes yoo xam ñoo koy dund sunna dekkal fa lu mel ni ay tuur maanaam li ñuy tuddee daayira wala yu mel noonu bu fekkee loolu lu jaar la ci daaw bi damay laaj borom xam-xam yi lu tax soññi wuñ ci ndaw ñu gën ko ñu gën ko yàq wala bu fekkee lu jaaruwul la tamit ñu laaj biir leen wax leen beneen yoon jàllale daaw ndax ba léegi wax benn la dangay gis ci askan wi ñoo xam ni jotagul daaw bi ba léegi wala seeni waajur amuñu xalaat jàngal jàngaloo seeni doom diine ba léegi xale yooyu moom dëkk ci gox gaxaan yan programme lañuy tëral ba daaw bi mën a àgg ci ñoom bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajmain wa baad <coughs> eh, ñu ngi nuyu mbokk yi yëpp di sant suñu sëriñ di leen ñaan yàlla yàlla na guddee fan seen fan gannaaw loolu man ñett bi nga xam ne xalaat na ci réew Palestine ismo Issa Sylla Issa Sylla xëradi bu leen ifriqiya euh, li ma gis ci ñett tomb yooyu bu njëkk ba mooy euh, gën a yitte jàngale nit ñi ak seen yar ci manhaj bu manhaj islam bu al saxiix ci bu wér bi ci loolu su jàngale bi nekk jëmi maraaxil naas xale yi mag yi jigéen ñi ak góor yi bu boobaa benn bi dina xaw a yomb ñaareel tom bi mooy gën a beral organisé ndaje mel ni diggante muassasatil islamia allati fi Sénégal di sifa am ngir ñu mun wéccante wéccante ay xalaat wala eh, tasxiix baal mafaaxi yaani ay wuute yi nga xam ne xëy mun na am ci technique bi rek mag yi euh, mu la mag yi gis ko ñu mun a tas seen diggante ak encore mun na dindi ay frontières yu nekk seen diggante loolu tam gis na loolu loolu lu war la ci xam-xam yi loolu mun na nekk ci sababal yi tax benn bi xaw jege wala mun a am fi ma jeexe mooy gën a yéeg encore ci machakil naas mooy problème nit ñi problème iqtisaadiya wala ijtimaaiya duwaat yi dafa dafa war ñu gën a yitte ci problème yooyu na loolu ñett tomb yi incha allah bokk na ci yi nga xam ne dafa ñu war muy ci xëy na yàlla mën na def tawfiq e, jege bi wala benn bi mu xaw a yomb wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad ñetti mbir wala sax li ko ëpp mën a tudd ci njëkk mooy ñiy woote bennoo ñu am pas-pas ak gëm-gëmu ne bennoo war naa mën a am loolu mooy li ci njëkk ndax ñu bëri dañu koy woote waaye dañuy gis ne mustahil la ndax dañ ne ah ñun kat dañoo tudd suñ maa ngi fi jiitu woon gis nañ ne ñii diw sàngam ñoom yabu yaa sàngam daan ko génération sàngam woote nañ ci fa ñuy dem dañuy jaar fa jaar rek waaye ñàkk boobu gis yow ngi gis ne mënta ne loolu daa bokk min muawwataati wexda kon dañu war a gëm ne wexda dafa war a mën a am kee comme dañu gëm ne farata la darura te bu fekkente ne dañ koo sàggane xeet dañ koo sàggane kon ñëpp dañuy maase bàkkaar kon dañu war a gëm ne war naa mën a a am duñ ci xalaat wala ñu jàpp ne farata la kon dafa man nañ dul boobu mooy bi ci njëkk beneen bi ci topp ñii daw ngir ne wexte dafa am ñu bàyyi xam ne weex wexte boobu li ko indi liñ jublu mooy al wexte fil gaaya mooy seen objectif dafa nekk benn moo tax ñu gën ne wexte dafa war a mën a am ndax su seen objectif nekkul woon benn kii dafa jëm penku kii jëm sow kii jëm feneen kon duñu wax ne wexte day am kenn ku ne da ngay xëy jëm fa nga bëgg a dem wexte fil gaaya mooy lan mooy ñoom ñëpp ñu gëm ne benn diine la ñuy liggéeyal mooy diine islam loolu suñ ko gëmee dana tax kenn ku nekk liggéey ba nga nekk ak fa nga nekk doo ci sa bopp mais li ngay teg ci sa kanam mooy ne dama bëgg réaliser pour atteindre objectif bi nga xam ne su ma ci eggee ka al umma islamique yépp dañuy bokk jëriñ waaye nag fii ñu ngi gëm ci suñ bopp pàcc pàccaan yi te loolu dafay am ci ci doxaat yi wax nañ ko bàyyi xel euh, kenn ku ne bëgg gaaw a beru ci sa koñ ci sa dajale ñetti xale naa sama xalqa wala sama masjid wala sama nangam yooyu te amoo li war a daje ci yow dajewul ci yow li war a nekk ci yow nekkul ci yow loolu day indi ay machakal rek ay problème lay indi kon il faut ñu bàyyi xel loolu euh, xëy na bi ko ñetteel mooy ñu gën ne wexda bi ñuy waxtaane man naa am ñun dañ ko waxtaane waaye duñ ko fekke duñ ko fekkee mu ñu bëri ci ñun bokk na ci moo aw yuqaatu wexde mooy bu ñu gëm wexde bi dañuy defee ñun ñii koy waxtaane ci ñun la war a sotte <laughs> ñun naa am ñun ñi koy ko fekkee mën naa am sax suñuy sët duñ ko fekkee kon dañuy wax dañuy bàyyi xel kon bu ñuy planifier dafa xam ne am court terme moyen terme long terme ñun fi ñu toll lan lañ ci war a mën ndax lii rek la lii daje waxtaan ci xalaat yi bu ñu fi jógee yeneen génération topp moom fan lañ ci war a mën a loolu ñu ko mu nga xam ne day leer ci suñu bopp ñu xam ne lii lañ bëgg fii ak deux mille vingt cinq wala deux mille vingt lii lañ bëgg a taxit ci wexda bu deux mille vingt ñu ñu évaluer xool fan lañ ci toll ndax li ñu waxoon ne deux mille vingt danañ ko réaliser ci ci wex bi def nañ ko wala déet bu ñu ko réaliser alxam bu ñu ko réaliser ñu ñu ñu continuer waat trala planifié waat leneen euh, xëy na ñett la ñett la euh, waaw gisakum la asalaamaaleykum waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi sant yàlla sunu borom bi subhanahu wa taala di gërëm mbokk mi di kàddu yi rafet yi yàlla yàlla sunu borom bi fay ko mu mel ne li wax li nga xam ne war na borom xam-xam yi eh, imam Cheikh Diagne Kër Massa moo di ne boroom xam-xam yi man jàpp naa ne bokk na ci leneen wax mooy jàngale nit kenn mënu koo defar te doo ko jàngale nit kenn mënu koo defar te jàngale waaye nit fokk ñu noo ko jàngale nag kon boroom xam-xam yi bokk na ci seen rôle mooy jàngale bu ñuy demloo ci ginnaaw ci réew mi loolu mooy lii fi amoon bu njëkk wala boo bokk na ci yi nga xam ne ni mooy yi gën a am solo ci njàngale mooy kenn ku ne yor keneen di jàng ko doo mën a defar waaye itam fokk ñu nangoo jàng waaye fokk ñu tam ñu jéem a taxaw ci orienté ak jubbante ak yar ni seen ginnaaw nit du passé jubbanti nit du passé orienté yu ñëpp kenn ku ne defe nga ne ak nga fa ko war a ak fekk bu ñuy seetee di réew mi mag ñi fi nekkoon seen yar seen ak seen teg ak ñun tey fi ñu toll sore na trop kon foog ñi nga xam ne borom xam taxaw ci ñi seen ginnaaw seen jikko di bënk leen orienté leen xam ne nii ñoo ne ci ginnaaw tamit ñu nangul borom xam-xam yi cër bi leen yàlla exemple lay jox man nii sama nijaay bi ma jàngal alxuraan ba ma ko alxuraan ci ay loxoom du jaar sama directement parce que jàpp ne maa ko ko ko xam-xam te donte moom ma jàngal ma yar mais du jaar sama tur directement fi mu toll ñun tey ñaata nga gis ñoo xam ne nii yow wër na ci moom fuuf mag la fuuf te boo àndee moom la war sa diggante moom ci ay teggin en tant que borom xam-xam. doo kon foog borom xam-xam yi ñu nangoo jël seen responsabilité ñi seen ginnaaw ci wàllu jàngal wàllu yar yu def ci ñoom ak ay jikko d'abord parce que nit ki bu rëyee boo xeebe nit ki doo mën a moom dañu dañu am ak rëy égoïsme dañ ko am il faut ñu nangoo am ak waa ñu torox la mu ne wala tabxasu naasa asyaahum bu leen wàññi nit ñi di kenn bu nekk la mu moom nga jox ko ko imam ni ko imam ak kenn ku nekk waaye tamit fokk ñi nga xam ne suñu borom xam-xam ñu yar na te nangoo sonn na ko kër kër yi nangoo liggéey nangoo dunde suñu ñàkk defe naa fekkee ne yooyu amut jàngal ñu yar ñu orienté wuñu nangu ñoo kër kër yi dundee dunde su ñàkk yaakaar na kon bennoo defe naa du mën a sotti comme ñu ko bëgg mais doon sëkk li mbokk ni gaaral ci kéem bu mujj boobu mbàcce bu mujj boobu rek li mu gaaral dafa ay xalaat li mu gaaral bu fekkee ni ko dama bàyyi mu nelaw rek defe naa na balaa muy xalaat ak li mu bind ni mu bëree bu ñu ko bàyyee mu nelaw noonu rek kooku bokk na ci rôle yi war borom xam-xam yu ci mu nekk programme ak lu ci yokk lu nekk dundal ko parce que au début wax jëm pour mbuus wax kese kese jëm pour mbuus yomb na mais taxaw nag liggéey mooy problème bi ngir baal naa ko salaamaaleykum wa rahmatulah. magi daaw ñu xam li fi nekk toog ak ndaw ñoom ñu waxtaan ak ñoom bu jaree sax ñuy wàcc ci ñoom di leen tegal ay programme ci xelak yooyu wala ci muhaadaraat yeeg ñu demee noonu loolu dana ci baax lool kon euh, gàllankoor yi ñuy am ci wàllu bennoo ci côté boobu mën naa mën naa dañ ñaareel mooy euh, stage tudd na ko bisaw la xayran ci wàllu programme école yi jàpp nañu loolu itam lu am am solo la ci benn la ndax bu fekkee ne kenn ku nekk da ngaa yor programme booy jàngale loolu mën na nekk jafe-jafe na nekk gàllankoor ci wàllu benn la kon bu fekkee ne bëgg nañ dem ñaari tomb yi incha allahu taala ñu fexe ba lépp nekk benn loolu su nekkee benn jàpp naa ne euh, yëf yi dina yomb maanaam na bu ñëw sama xel léegi am na ku ko tudd sànq ci wàllu dëkk kaw yi dëkk kaw yi jàpp naa ne ñi nekk Dakar ñëpp ñoom ñoo dëkk ci ñoo kaw te li ñuy jële fii mën nañ ko yóbbuwaat foofu mën nañ sukkandiku ci ni ñu séddalee dëkk yi Sénégal dafa am ay région bu nekk bu fekkoon ne benn daara bu mag ma nga fa boo xam ne moom dina fexe ba département am ku fa am ku fa nekk maanaam ñu ko séddale noonu ñu tëgg séddale ko noonu lépp tëgg ci ki nga xam ne moo ne ci région loolu lu am am solo la pour benn lu yëpp su ko defee bu ñu bëggee boole ñëpp teg leen ci benn yoon ne fii lañ jëm ñëpp xam ne fii lañ jëm jàpp naa ne pour àgg ci foofa du nekk loo xam ne lu jafe incha allahu taala ñu ngi jégalu bu baax a baax ci kàddu bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu yaakaar naa léegi taalikaat yi ak mu daaxalaat yi jeex kon dañ fi am ñaari mbir mooy benn bi mooy kàddu bi ñuy tëjee jotaay bi kon dañ koy jagleel docteur insha allahu taala mu ànd ak benn laaj bi nga xam ne mbokk yi am ko laaj nee nañu liggéey yi nga xam ne koy def ci koñ yi ak ci mbedd yi ñu tuddee ko ay cellule wala ay daay wala ñu mënta tuddee waaw ay wala daje yooyu dégguñu borom xam-xam di ci wax bu dee lu baax ñu bind leen ci bu dee tamit lu jaral ay àndal tamit ñu ngi sàkk leen kon loolu lépp dañ koy jox docteur incha allah taala wala fadal masuura bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala jazakumullahu xayran rais darsa bi ak muxaadar bi ñu leen yàlla fay yiw ci liggéey bu rafet wax dëgg yàlla man xaw ma woon lu may wax ngeen la cee forsa bu baax lii moom ku ko déglu lii ne benn thème la boo xam ne thème jëf la maanaam yi ci wax yëpp yu rafet la yoo xam ne waree sa yu jaadu la waree sa mën a def mais man njëriñ bi ma ci jëlee beneen mooy ahlu sunna ci Sénégal euh, seeni xilaat daal déggul noonu di wax benn leneen daanaka nan la ci def ba coordonné seen seen liggéey ci wàllu pratique moom la ñuy ku xamoon lii daw ci àdduna tey ak yooyoo bi nga xam ne ñii yem ci. diine ji juuyoo nañu noonu boo génnee ci bitim réew mi gis na mbir yee tëddee da yëg ne foofu ku doon wax affaire waxi benn leen doo waxe fii ñuy waxe moom teg noonu li soxla mooy coordination dadi nag mbir bu fekkee ne bëgg nga mu génn rek ay wax jëm ci jëf da wax la mën a nekk maanaam mënuñoo xëy xëy wax ne ab jàmm yee wutu am Sénégal ahlu sunna yëpp dañuy àndandoo doon benn jàppe loolu moom mu ne suñu comme ni ko waxee woon waaye man naa am benn kiyaan bu leen boole moom ñëpp foo dem fu ne lu mel noonu moo fa nekk Gàmbi gii mu gën a jege tey la fa nekk ci ñuy jàmm yaat bari waaye alhamdulilah ala usuul islam yi boo leen boole ñoom ñëpp boo leen jàmm yi fa nekk dañuy ñëw nekk membre ci conseil supérieur islamique al al ala te suurat islaamiya majlis boobu dem na ba ci kàttanam lépp lu aju ci wàllu diine moo ko yore état moom la koy laaj su weer bi kii moom la ñuy déglu moo xam dañuy wari moo xam waxtaan yi nekk ci télévision beeg rajo beeg yu mel noonu ñoo ko organisé dañuy déglu ñuy wax suñu déggee ko waxu njaaxum dañ lay yow ñëpp ñu ne la li wax moo ko waxee nga wax laay bu fekkee lu tegu ci xam-xam lu ko teguwul ci xam-xam ne la bul waxati lu mel noonu soo ko defee rek wala yéen danañ la fere seet bu fa kon ñooñu organisé wu nañ ci wàllu diine te loolu bu mu ta ñàkk kon ñun li ñuy wax tey su fekkee wàllu pratique lañ bëgg loo xam ne dañuy jóg mën koo jëfee mooy jàng yaa yi te nekk mu assasa bi nga xam ne dañoo tegu ci kaw alquran ak sunna li ñuy def ba daje ba am benn kuréel boo xam ne moo leen boole ñoom ñëpp kuréel boobee doon bureau ñu samp ko mu am ab siège nga xam ne fa la dellu yor ay lijaar ñu xam ne bii li la bi moo yor lépp lu jëm ci wàllu fatwa ndax lu ñuy laaj bi ci am sunna boobu moo yor lépp lu ci jokkoo autorité yi ñii yor yor lu jëm ci wàllu yàlla wax ak président def ay déclaration ay porte parole yu mel noonu ñoom ñoo yore loolu organisation bu mel noonu loolu lañ soxla nii muy doxe nii fii ci Sénégal nit ñi weesu nañ ko mbooloo ci bopp yaakaar ne yow yaay alkitaabu sunna boo ko weesu nañ ko léegi dañoo war a dem ba joxante loxo gi am lu koy jëmbal ci bitti dëgg la joxante loxo gi am na ñenn ñu ci nekk ci ci ci li ci mbooloo yi daanaka toog ay mbooloo waxuma sax diggante mbooloo mbooloo mais menn mbooloo rek. lay nekk ci biir ci ay inchiqaqaat ak ay xulóot yu warante day ci bitt ñëw dajale leen di leen juma jumale yooyu suñ demee ba yàlla dogal ñu weesu te lu baree bari ba diggante mbooloo ak mbooloo ak ñu weesu te lu baree bari kon nag léegi jéego bu ko jëmmal initiative boo xam ne mooy wane ne lii lañ war a def pour mën cee jëm kanam loolu la ñuy foofu la ñaan suñu borom tabaraka wa taala jàpp loolu kenn ku nekk nag rawatina ñi nga xam ne dañoo yor responsabilité yi jëm mbooloo ñu yëg ne am nañ ci aw sos wu rëy kenn ku ne am nga ci sos wu rëy ndax lislaam bi nga xam ne moom la ñu war a jàngale ci réew mi war koo tasaare mu tegu ci alxuraan ak sunna tegu ci anam bi nga xam ne boo gën a neex a présenté doomu aadama nga xam ne ku dégg gëm ko soo yi lépp loo xam ne njaaxum la soo yi lépp loo xam ne xonq la réew naa ko ñun loolu yu mel noonu lislaam dañu yëpp mën a am mbooloo yu sew sewaan yëpp ñu nekk ci rox yëpp xaw ñu boole leen ñu génn ñu ñu am ay njiit ñu xam fan lañu war a yem kenn ku nekk xam la nga mën ak la mënut ñu bañ dugal sa bopp ci loo xam ne loo xamul dafa yàqal sa bopp yàqal ñeneen kon foofu liggéey bi foofu la loolu day day jokkaloo kuréel yu ndaw ndaw yooyu ñoo xam ne ci koñ yi moo xam luñ tudde seen bopp ala kulli xaal fépp euh, fu ay nit nekk yëngatu di tuddoo sunna wala ñu tuddoo leneen sax parce que daaw bi ñu daan yaatu ñu ko mën kaaba sunna ñi nga xasoo bañ ñëw li gën a bari ci sa liggéey sax ci ñi ñëw ci war a jëm waaye teewul su amee ci biir ay sunna nag nga gis ay ndaw yoo xam ne ñu ngi dajaloo ci béréb di créé ay kuréel yoo xam ne xëy na euh, mën nañoo jàdd sax te duñ ko yëg wala yu mel noonu boobu am nañ responsabilité ci ñoom ci jim leen a intégré dugal leen ci biir nit ñi bu dee dañoo soxlaa jàng ñu yóbbu leen ñu jàng yi dimbali leen ñu mën a yokku xam-xam gën leen yéen ci jamono bañ xam su ko defee loolu bi moom lu mag lay doon ci ñoom yaakaar naa suñu mbokk yooyu di coordination musulmane a mag ndax euh, seen liggéey mooy kuréel yu ndaw ndawaan yi nga xam ne yëpp dañoo nekk ci biir Dakar di yëngatu ci alxuraan ak sunna ñi nekk ci ay koñ ñi ci jàkka ñi nekk ci kàddu ñi nekk ci ëtt fexe ba dajale leen ñoom ñëpp xam leen daana mu nekk nga xam kay itam xam la bureau ba nam leen ñoom ñi ñëw bokk ci CMD loolu ci boppam ëpp liggéey la bu mag boo xam ne ñoom loolu ñu ngi ciy def lu bëree bëri ndax jàpp naa ne kuréel yu bëri ci ndaw ndawaan yooyu xaw a am maanaam bu nekk nga membre CMD ndax ku nekk lañ am ci ci biir Dakar kon kooku seenu liggéey ni ñoom kon nañ ci ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax seen i membre ñu ngi fii kon ñu ngi dégg loolu ne seen risaare ci la noonu ci la war a jëm dana ko am ci war a ko taal jàpp bisaakum laaw xeyran ci cër muy jox ci waxtaan bi asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah kon ci mujjantal jotaay bi incha allah taala balaa ñu tàggatoo dañuy woo suñu mbokk suñu doomu ndey ak oustaz docteur Ali Guèye mu wax na programme suba suba nan la nga tëddee incha allah taala ñu bàyyi ci xel bu baax a baax tamit xam ne bés tey bi nu mu demee suba na ko suba si incha allah. jazakumullah الشيخ أحمد وجزاه الله خيرا أيضا الأستاذ kunte ci muhaadara bu am solo bi kon mbokk yi ci ndaje mi programme bis bu njëkk bi ci multaqa mu des itam suba insha allahu taala am na lu am am solo lu des ci liggéey bi ñu ngi leen di ñaan ñu teel a ñëw ndax 10 heures allah yoon bi tey dañoo xawoon a xaw a tardé tuuti waaye ne ñëpp ñëw avant 10 heures ndax bu 10 heures jotee incha allah taala ci la euh, docteur Modou Abdallah Sall di tàmbali muhaadara bu am solo boo xam ne ñu ngi ko tuddee euh, adabul xilaaf bayn al maadi wal xaadar ak yow taamul ma al muxaalifin maanaam te yi wuute wuute mënta ñàkk léegi bu ñu wuutee yan teggin lañ war a am suñ diggante ñi ñu wuuteel ak itam ban fiq lañ war am ban teggin ci jëflante ak ñi ñu wuuteel Euh, loolu mooy muhaadara bu njëkk bi mi ngi nekk dix heures ba douze heures léegi bu euh, douze heures ba douze heures et demi dañuy def benn pause noppalu tuuti euh, jëfandikoo pour bañ a wax xewlu ndax xewlu mooy julli ji léegi ginnaaw ba am na muhaadara bu am solo boo xamante ne oustaz Bamba Ndiaye moo koy def ancien ministre mi ko ñu ngi ko tuddee ab taanu fi sawaabit wa asaluhu ala istiqrar kitaabu sangare na mosegen maanaam euh, jam gi nga xamante ne mooy yi sax ci euh, diine ji euh, jam ba ban jeexintal la am ci stabilité dëkk bi maanaam ak dalam jël ci mbir sangare ginnaaw ba loolu mi ngi am douze heures et demi ba douze heures et demi lay am loolu ba quatorze heures 12 heures dem ba 14 heures 15 léegi 14 heures 15 ñu dem julli ji doo ko jëfandikoo ginnaaw ba nag bu jullee takkusaan ba noppi amaat na beneen programme bu am solo nag nga xam daanaka mooy tëj li ñu fi doon def lépp li ñu fi jàng yëpp ak li ñu fi dégg yëpp ci ay waxtaan bi ci eh, lu aju ci bennoo xeet bi léegi nag yéen la ñuy delloo kàddu bi ngeen xalaat yan programme la ñuy teg nag ba mën a eh, benn la julli yi fii ci Sénégal léegi boobaa théorie du amati. waaye nag léegi pratique bi mooy ñoom moo tax ku ci nekk na ci commencé xalaat lu mu am ci ay euh, xalaat yoo xam ne gis na bu ko ci joxee dinañ mën a euh, benn la jullit ñi mu dajale ko kon loolu ginnaaw tàkkusaan suba insha allahu taala dinañ def benn atelier boo xamante ne ñi bokk ci euh, kii bi yëpp ñoo ciy bokk xalaat ban programme Euh, pratique la ñuy teg nag pour mën a dajale jullit yi Sénégal kon euh, ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu dajalewaat ñu fii ci jàmm ak salaam mu nangul ñu li ñuy def lépp wasalaamaaleykum wa rahmatullah